liggéey il y a il y a il faut juste que ñu tënku ci li nga xam ne moom la ñu signé Sénégal dem xaatim ko au niveau des Nations Unies cest a dire ak ak yelleef boo xam ne euh, xale bi dañ ko ci 54 articles yi nga xam ne moom moo concerné xale bi boo xoolee quatrième position bi euh, dañ koy wax ne da dafa am droit ñu aar ko mhm. contre toute forme de violence mhm. ak toute forme de d'abus et d'exploitation. Mm-hmm. loolu rek ça tout dire te ci quatrième ponk bi la la la féete Sénégal on n'a rien à foutre des enfants dañuy waxante dëgg rek. Mm-hmm. c'est-à-dire que les enfants sont laissés à eux-mêmes loolu mooy dëgg parce que boo demee direction de la famille. Mm-hmm. am na euh, enfin ministère de la famille am na direction de la petite enfance. ñoom ils sont chargés de veiller à ce que les enfants du Sénégal soient euh, les, droits des enfants soient respectés. Tout te ñoom ñi ngi taal seen oto di romb di di romb xale yi di di di di lii donc il y a quelque chose qu'ils doivent faire et qu'ils n'ont pas fait on a des des associations yoo xam ne ak ak yelleefu doomu aadama yi la ñuy lañ la ñuy si la ñuy yëngu est-ce que la batay a été farouchement menée pour que xale yi génn ci mbedd mi mm-hmm. moi je je je donne ma langue au chat c'est-à-dire que ah bëri na de nu tëddin euh, kii yi ngay wax ni solution yi ngay yi ngay joxe ni yooyu dernière position sax la war a ñëw c'est-à-dire que yaa a les moyens de maintenir les enfants dans les maisons wala ci daara yi wala dara état am lu mu war a def lu ko warloo ak daara yi mhm. su ko defee mhm. ñi nekk ci daara yi aussi ñu bañ a obligé di dem di yalwaan mais man mii di man mii aussi ma jël sama doom yóbbu ko pour mu dem jàngi aussi am na lu ma war. man sëriñ bi tam am man gis nga sëriñ bi man mii di dalal sa doom boo amee ñàkk fayda wala ñàkk jom ba indi sa doom dénk ma ko te doo doo doo doo weer du dee ba nga ñëw xool ci ni mu nekkee. man ma am fullay mhm. laaj la looy dundalee sa doom boo ko mënul ma delloo la sa doom. Mhm. en